لا إله إلا الله سرنا سيدا لا إله إلا الله لا إله Seynabou Ndiaye yaa nu gindi lay loo ma sa am ay junni daal nga daan joxe na soppey Cheikh Ibrahima Fall dëgër. ëllëg la mbir yëpp di leer nu xam la faal. waajul ak gantu xam ni yàlla buur am yàlla moo gën am leneen lu dul moom faal moo tax nga am yàlla indil nu ay koom. ngërmal yàlla ak yoneen ba Seex Ibra Faal maa ngi Ibra Faal Muhammad Bamba daaya xam Seex Ibra raw nag maa sam te kenn du ko def Bamba ko sempi mu raw yaaram bi nam faal damaa yéem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 ab seet du dem ba doom dikkee mm, Seex Ibra Faalay doom dikkee mm, ñoom ñaar ñoo rawe bokk rawe doom toppule waaj leen mooy pexe ab seet moroom yaay topp maam sëriñ murit yaay topp ma nan jéema wàlli seen poma te boppam yi ngeen di fexe Seex Ibra ngëm galandi na moo tax mu dëddu àdduna fekke na Bàmba sotte na wàcce na àjjanaay texe mas nay xibaaru jébbuloom bay wax na yàlla mi ko moom moo ko ne seex ban mbaala moom raasi ko jox ko say pexe tegtal ko yoon wi ab murit di aw baraw pexe marit ba am ngërëm bari murit te dootu ree di mex-mexi mu daldi dem tay ba Dakar ngir déggo Bamba di fa xaar Seex Ibra ne seet naa sëriñ tay ba Dakar cim njàng lay xamey pexem mu tëdd guddi listixaar ba mu xëyee ba tisbaar sëriñ maxtaar turee fajaar leeram nga won ko ay pexeem maxtaar Touré nga yori joor yenu ko jëm Mbàkke Kajoor sëñ Bàmba yónni ko ca buur Seex Ibra topp cay fexeem ba gis fa seex aadama gay sànni mbiram daldi ca ngoy mu won ko ban ba mbër mu rëy sëñ Bamba naa ko foofa xeem mu wax ko tegtal ya fa moom sëñ Bamba wax ko la fa moom seex Ibra nee ma xam ne gis naa ki ma moom mu daldi fa mbiram joxeem ma wax la bis ba ndax mu wóor doon nittu fan ci weeru koor bisub dibéer la mbir ma wóor Seex Ibra yaa kërëy pexeem musoo bu far ba jiitu leen sëñ Bamba ne kii ëpp na leen Seex Ibra Faal leeram gu rëy gi wër na leen fu mu toll xol bi nux nuxiin wax naa ne tuuti kon mu dem fekk sëriñ bi lëm mbiram ba kenn du mos ci baatinam lu dul ca bés bañuy texeem jaaraama Seex Ibra Faal lampum ngëneel bi Bamba taal leeral nga riiw mi yaa kamaal yal na nga dolli bi raxiim ba mu ñëwee mbàkke kajoor fekkoon na daara ya di suur moo jëkke yalwaani di waruñu di koree di tex yendoo liggéey fanaane root gaayay banaan xureen balay ganaar ne kur moo ko xewal daawul doxiim moo fa xewal nuyoo di raam moo ñu tere wuyu ne naam fekkoon na ñuy jàng fa maam muy muri tudde fexeem moo fa xewal soli sagar moo fa xewal sëqal kawar moo Ndar daawoo fa bay di ruxruxin ba mu ñëwee Mbàkke Bawol daf leen ne waa kër gi Bawol man Seex Ibram ay soq tey rooti di wol boo léeg di ko joxe lu Bamba wax mu daal naaw fuureem jurey ja sant saaw naan ko dangay ngay deltu gannaaw jàngil mu ree tuddum pexe mboolem murite di ko soow mu mel ni dof bu ma yiw ba mujj far ñëpp ne siiw melom wa far di ko waxe musoo bu far ba jiitu leen far gëni bokk gëni doom jaaraama jaaraamal xaddeem wàcce nga wàccaaleeg texeem yow musulaa juyoog ndigal naka nga jóg dégg ndigal ku aw sa mboor duñ ko mbugal garmi yaa tax ñuy texeem yaa jëkk a jébbuloo sa xol fekkoon nga gaañey xor-xoral ñii di taqal ñii di setal yaa xal ngir mi ñuy doxeem yaa xam sëriñ bi yaa xereñ daawoo weranteeku sëriñ bajja bi yaa bari njariñ waane wi yàgg ngaa naxeem am ngay ngërëm am ngay dërëm fab say dërëm jënday gërëm Cheikh Ibra Fall loo masa am tàbbal këram ay junne daal nga daan joxe jox nga ko addi yaay gëleem yii sa fi du sa fi koom soldaar sa yaa joxe sa doom falli lu faal am na texeem sa ndaw da daan dem ba gabon doon yóbbu ay sàq yorong di war ci gaal yore bong doo denc lëf ba muy maxeem bàyyey saxaar doo may wata kuy xam la yàlla du fi të ku ji àndaar góob te mata jileen ci taw bi béx béxi sëñ man ba taaw loo Cheikh Ibra taaw bay Moustapha diggante marwataak safa kuy aje war nga faa doxeem sëriñ bi am nam fàllilu Cheikh Ibra Fall am nam fàllilu gaa yi ku gëm na faale Cheikh fàllilu mbaa ak mu jëm day toroxi sëriñ bi bég le nam basiir Cheikh Ibra Fall bég le nam basiir mbég moo ci dem lekk ba suur jegel ma kay togguy joxeem sëñ Bamba am nam Abdoulaye Cheikh Ibra Fall am nam Abdoulaye Abdou mu nekk mat na waay bul weddi cee boo kay taxee sëñ ma maam nam saaliwu am nam saaliwu nan jéema ci seex saaliwu ba ñibbi àjjan ay texe yal nañu aw seen tànki baay ba mujj tol ni seeni baay ba mujj boole seeni gaay amee na ndax ñëppay texe wa sallallahu taala ala wa maulana muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم سن إلهي بالمناجات وابدا أخنا يدي أنهاتي دلالي العلماء والأولياء من لا يزال قوتي وأولياء دلالي العلماء والأولياء من لا يزال فاخت خزائد الكرام ولتقول أبدا خير المرام هديتي مخجلة كل من لي كان مناسعا واسع المليل ما تاج نزار العالم الحمد بلا إله إلا الله يا زيدا يا زيدا في المال خلص رواه ويا محبا فؤادي دهر مسواه inni ataytu li waji laay shairukum abxi bihi naylama arju waaw waaw jazaaka axilu ibrahima mawlaaka xayran jazaawal muna daaray kawlaaka فاعلم بأنك إني سوردا أبدا وسأكرمك في دنيا وأخراك فدم لا شرخ والإخلاص مطيبا في شر والجهر كي تنو مساياك فدم لا والإخلاص متيبان في شر والجهر كي تنمو مساياك سرين توبا سرين توبا سرين توبا sëñ Tuuba sëñ Bamba duniyaa yaa ko moom yaa nuy dundal yow ci sam yaa am lu gën saxum juróom dundal gagaay jébbulu yow ku la xam dana la gëm ay ku la di daa gëlëm wurus nu roowul ak përëm ku gumbawul kaay jébbulu sëriñ Tuubaa inaan du tee toog ci kaw ñu toog ci suuf lum wax nu daw ku yàlla baaxewul du ñëw ci seexi Bàmba jébbulu yaa saa'ili an sabba bi tawsiimi yawma alxuruuji sheykhina alxadiim min dariitunaa bi Mbàkke baare bi isni xaaliqal baraaya albaari xarajtu yawma sabti saamin asar li xidmati almuxtaari fi shahri safar taarix ba mooy junne ki ak fukki at su ngeen ma digloo tey ma dellu yeete ndax ñi nelaw seen xol yi dellu seeti kuréere mbir day laaj ka xam la mu xamul laaj leen mbirum ki leen amal lu kenn amul gumbay njaccaar laa ngi teengeen wedam bu xamul laajul ku xam xaw mawlayam ku toppatul yàlla na toppi waayam mbaa lu ko dal bu mu ko xul nan jéem a topp yàlla toppi ndigalam te jéem a daw seytaane xamee dugalam te jéem a roy roy rijaalullaay te jéem a roy kullu jaalullaay ana soppi Cheikh Ibrahima Fall Ahmadou Fall Seer Njaay birante bi cangaay bay naaru degen faal sëxna bu soxna balla maam njaay maam yi seex musa abdu sakkooru faal nan jéema royroylu rijaalullaay te jéema roylu kullu jaalillaay alxayru fil muxtaaru al muxtaaru laa fi lazi nafoosukum taxtaaru xajaakum min al ilaahi nooru bamba jago pour waala zanda nooru bamba jaar ak noon yàlla jaaral fil baari wal baari wanaal daara xaatal tu fil baari la wax sitaana kab kab woo xayral waral awtaana nobal bu engagé baxeex ca ngeer ba nu róowulan si keroog payoor ba am di faalu Seex Mustafa mbégum jaam ñee fu yawaa am di faalu Seex Mustafa faal mbégum jaam ñee fu yawaa إلا الله فعل ربنا لا إله إلا الله